alors aujourd'hui la rubrique société va discuter euh, de la dame ki est traitée de dëmm donc jamono yi yëpp nag gis nañ ni que c'est un sujet vraiment d'actualité donc Mass wax ci feggoog aujourd'hui ak ki nga xamante ne moo de oustaz Cheikh Tidiane Diaham donc Mass dañu leen di bàyyi rek ngeen dugg ci sujet bi. waaw euh, Samba. li xew ci réew mi euh, lu doy war la. Mhm. parce que aussi euh, gis nañu vidéo yi muy surculer ci réseaux sociaux yi. mais gis sénégalais yi ku nekk di interpréter. Mhm. Euh, muy benn femme boo xamante ne gis nañ ko ci fële ci Patte ci benn mhm. immeuble mu yéeg fa. Mhm. man mi mënuma yéeg ci immeuble boobu. man xam naa ne mënuma faa yéeg. sapeur bu ñu utiliser moyen duñ yéeg ci duñ yéeg ci immeuble boobu. femme bi lan moo ko yóbbu ci immeuble boobu ba mu ne cokk fi mu toog. ak téere yi mu takk ak alxuraan ji mu doon tari. ci koñ ba am na ñoo xam ne tàmbali woon nañ taal cuuraayu cuuraayu cuuraayu cuuraayu ndëmm la xaw ma cuuraayu nangam. <laughs> comprendre am na ñu ko commencé woon taal. Mhm. Euh, am ñu bëri suscité nag commencé naan femme bi dëmm la. femme bi dafay lekke femme bi dafay nangam. Mhm. gis na gis nga loxo yi na mu mel. Mhm. yooyu yëpp ñu gis ko ci image bi. ñu gis iso biñ ko biñ ko wanee façade bi mu wane ak bi mu wàccee. Euh, yaa ngi benn état mu am mu am ñeneen aussi ñoo xamante ne aussi euh, am yéey nañ ci yàbbi. mais dama bëgg ñu ànd. dem xool élément bi. delluwaat ci plateau bi ngir mën koo décortiquer. voilà. benn étage ñaari ñetteelu étage presque gis ngeen soxna si toog foofu kii toog ni diw tare ay alxuraanam gis ngeen ko sol yëreem nekk am à moitié nu ma xamul naka la def ba jaar fii naka la def ba jaar ba yéeg ba toog fii man moo njëkk a nekk sama problème donc moo na yàlla rek man ñun dinañ gis lu ne parce que si jamono ñu toll nii suñu borom dina wane lu ne dinañ gis lépp. nag gars yi dañ ko doon jéem a bëgg di wàccee léegi benn booy mën a ko bu ko laal dañu woo sapeur woo police ba pare yee borom kër gi parce que immeuble bi immeuble cinq étages la te fi mu si toll sori na waaw ñu ngi ci ba tey rek ak suñu femme bi nga xam ne kenn xamul fu mu jaar ñun moom xam nañ ne affaire yi bu jollee dëgg dëgg dina ko joxe affaire yi bu jollee dëgg sapeur yi ñëw nañu pour jël si ko waaye xam na ne bu jollee dëgg dëgg dëgg dëgg bu jollee dëgg wallaay voilà ñu koy yëgal waaw bàyyil sa yaram rek ñun jàpp nañu bu dee du ko ñuy tooñ tamit def na yëfu ku ñuy tooñ ndax foofu góor sax mënu fa nekk information yu mujj yiñ ci am maanaam dañu ko yóbbu fi nga xamante ni mooy hôpital dalal jàmm ngir xool li nga xamante ni mooy wàllu xelam waaye nag ci xibaar yi ñu ci am mooy docteur yi dañoo ñëw ca néeg ba eh, fekk fa yëre kase yëre yi nga xamante ni moom la indaale woon moom lañu fa fekk mbokkam yi nag eh, ñi ngi jéem a yóotu ngir jot leen ngir ñu indi ci ay leeral euh, muy mbir mu mu xaw a doy waar ah. Mm-hmm. <laughs> Salma parce que man Sénégal dañoo tàmm njiñ dëmm nit ñi te balaa ñoo jiñ dëmm nit mooy ku ñàkk. Mm-hmm. Ah, boo otul nag jeex tàkk doonu meer. Ah, mbaa nga am benn bëñ bu génn maa nga fan nga ñu ne dëmm la. dëmb gu riis moom mosuma ko gis Sénégal <laughs> dëmb gu riis ah, tout le temps ki ñuy jiñ dëmm mooy euh, ku ki ñàkk ki torox ki am jafe-jafe ki nga xamante ne tey ji euh, mi ngi ci degré de pouvrité bu doy waar ba bu la xoolee nga xam ne kii ñàkk na kooku moo lay xool bëti nga ne kii bët bi ma xoolee ab dëmb la kooku la ñuy tam dëmm mais gumis bu ñu ñëwee ci ci ci ci image bi vidéo bi ñu gis euh, femme bi euh, koñ ba ci boppam gis nga immeuble ni mu toll sama question mooy euh, dëmm am na amul cheikh bi na ci ñëw léegi mais nag fan la jaar parce que man man ki ma gis nit la parce que man munuma juge nangam dëmm nangam nangam man nit laa gis man maas mboobu mhm. nit laa gis falaa mën a yem waaw am na ñeneen ñu am xam-xam fii nag mën nañ ko interpréter ñu leen neex mais man kii ma gis nit la mhm. mais sama problème mooy fan la jaar parce que man question bi ñëpp di posé naan nangam nii dañu bëgg tuumaal femme bi gis naa koo xamante ne doomam la mu génn wax li mu leeral mooy kii yaayam la bëggul ko nangam ak nangam gis naa ay mbokkam yu génn wax ni ni ni ni femme bi du dëmm du nangam dafa feebar rek feebaru xel la yor gis nga beneen beneen element bi waa ji wax ne bi ñu ko yóbbee ci hôpital bi dañoo jékki-jékki gisuñu gisuñu gisuñu mën a mes mm-hmm. est-ce que jinnee ko na ces teg ko fi mu ko teg Mm-hmm. mais il faut préciser que aussi waa hôpital bi démentir nañu. démentir nañ loolu. Mm-hmm. hôpital bi aussi démentir nañ loolu tamit. Mm-hmm. démentir nañ ne comme li li li waaj wax nii maire bi dañ ko jël yóbbu ko médecin yi dañu dugg génn ñëw gisuñu maire bi gis musu mm. maire bi très bien léegi nag élément élément xam xam nga tax ma bàyyi mu jàll noonu. mooy yenn site internet ci profité ngir am buzz. di wax lu dul dëgg. parce que aussi euh, yaayu jàmbur nga tam ko dëmm tamit. Ah, nekk na mbir mu gë mu doy waar. Mhm. mais man sama question leen rek la te yéen yéen ñëpp laa koy laaj. Mhm. mooy fan la femme bi jaar ba toog fii ndax man maas boobu mënuma ko gumis mii munu ko Aliou Sow nii mënuma ko mënoo mënoo leen ko. Mhm. kon euh, cheikh bi. bi nga gisee événement euh, li lii nii. Hmm? ñu naan dëmb laam du dëmb nangam nangam nangam yéen ñi yàlla may eh, xam-xamu baati nag yooyu euh, lan nga mën a wax ci ci ci ci ci ci femme bi ak ak ak vidéo bi nga gis. waaw alhamdulilah. Euh, ñoo ngi sant yàlla bu baax di wax ne comme ni ko ñëpp gisee lañ ko gisee. Mhm. waaye vidéo bi bañ ko gisee euh, yàlla dogal na. Mhm. Euh, ndax ñun balaa ñuy àddu ci mbir mu ne. Mhm. di leen ci def gëstu. balaa gëstu boobu jàngat moo ci jiitu. gëstu bi lim ñu wan moom mooy ne boo ko nattee ci xiyaas. moom mooy xel. xel daf du nangu nga ne maanaam euh, femme bi naka la mën a def ba yëg foofu mm-hmm. te waaye kër gi ci boppam ñoom nee nañ yëguñ benn yoon foo xam ne moom dugg na ci biir kër gi ba mën a jaar ci fenêtre bi mm-hmm. mën a cëppeelu te meer la tamit mm-hmm. su cëppeeloo da ngay gis ne mën na daanu gis nga balcon bi ni mu mel te troisième bi ni mu gàttee kon euh, foofu dëgg-dëgg li la fa xew loolu kéemtaanu yàlla la kemtaanu yàlla la nag foofu nag dama ci leeral benn sew-sew mm-hmm. moom mooy ne shayatin yi mu miru seytaane mm-hmm. dañ yéeme ndax ñaari façon ñoo am na boo xam ne e, ci mbiru nit la nit lay dugg am na boo xam ne tamit shayatin la boo xam ne mbiru jinne la mm-hmm. ndax jinne yàlla reconnaître na ko ci alquran ma xalaqatul jinni waaw ndax yàlla loolu loolu la santaane ma xalaqatul jinn wal insa illa li abuduni ma uridu minhum min rizqin bindu ma nit a jinne lu ñu jaamu bindu ma leen ngir ñu wërsëgal ma mhm. bindu ma leen ngir ñu leyal ma ndax inna laa a razaqu zu quwwatin matin mhm. kon yàlla li tax mu bind ñu loolu la leneen lu xew lu dul loolu rek dafa mhm. jaas léegi nag nit ñi wax nañ ci lu ne ñi ci wax ñëpp ay kii la làmbatu la rek nii la maire bi dëmm la maire bi e, kii la waaye li wër te wóor moom moo ne dafa feebar dafa feebar feebar boobu nag mhm. dinay dugg nit maanaam seytaane dinay jël nit dugg ko ba jël kaanam mhm. ah. di ko def loo maanaam misaal bi ma la ciy jox moom moo ne nit rab mën na ko jàpp dugg ko boole ko ak teen da ngay xëy rek gis ko mu dugal ko ci biir teen bi hmm? waaw loolu dafay am ah. léegi li mën a dugal nit ci teen nag waaw te loolu man am na am naa ci firnde mhm. ndax am na koo xam ne Saalum loolu dal na ko fa jigéen la mhm. man teg naa ci sama bët ngeen fekkoon ci biir teen ba teen bi waaw waa kii da nga bëggoon ba mu génnee jinne moo ko yóbbu ci ba mu génnee mhm. dégg nga bañ bañ bañ defee gëstu bi eh, loolu lañ gis moom mooy ne jinne yi ñoo ko yóbbu foofu waaw waaye ala kulli haal maire bi loolu rek la mën a demee loolu rek la a vraiment euh, kon da nga wax. waaw ah, parce que bu fekkee ne moom jaarul ci ñun dañoo jaaxle ci ah. plateau bi xoolu gomis ah. ni mu lay xoolee <laughs> maanaam euh, Aliou Sow mi mi mii kii sax mais euh, mhm. Salma mhm. man problème bi mooy da nga bëgg wax ne maanaam kii jinne ko ne wala jinne dugg ba ba ko mhm. fi fi lu mën a nekk la a ne la lu a nekk la waaye booy dugg si teen da ngay daw yow yaay daw ak say tànk ba teen ba dugg waaw jinne bi du jékki-jékki rek dugg duggal la ca yow waaye waaye maanaam dugg bi mu lay dugg seytaane bi daf lay xëptal ci loolu boobaa kéemtaan lay doon boobaa bu bu koy def action bi na muy demee. Mhm. loolu mbiri yàlla la. yow yow doo fa ne doo fa ne. Mhm. loolooy tam mbir mi di gaaw. parce que man vraiment euh, mhm. euh, xam nga aussi na Sénégalais yi bàyyi di tam nit dëmm. parce que boo koo ko def tooñ nga ay mbokkam. koo ko def tooñ nga ñamu ñëw ay ay doomam. nañ bàyyi ku ñu gis rek tam la dëmm. mais wax dëgg yàlla aussi nañ wax man man man man vraiment maire bi fan la jaar. ba mën a toog fii yaa ngi koy wax mhm. sànq cheikh bi mhm. maanaam euh, mag la boo xamante ne bu doon toog tey bu bëggoon bu bëggoon a bu bëggoon a euh, cëppeelu mhm. mais ak foofu ni mu sewee mais day daanu ba pare mu toog bizarrement ma ngay tari alxuraan parce que bu fekkoon ne euh, jinn la wala dëmm mais boo ko gisee ay alxuraan la doon tari mais man sama problème mooy jinne bi ngay wax ak ndëmm gaag yooyee di topp mais lan moo ko ne coppa teg ko foofu man man mooy sama problème d'accord mais moom nañu wax déjà li la fait que ñuy wax eh, histoire de dëmm ak ku ñuy tooñ yooyu noonu donc gëm nga ko wala déet. waaw xam nga alxuraan li mu reconnaître am na am déet. Mhm. alxuraan li mu reconnaître nag. Mhm. moom mooy ne dëmm bëtal moo am bët bu aay. bëtal bët maanaam nit làmmiñu nit. Mhm. làmmiñu janoo. wala bët boo xam ne bu ay la bët bu aay léegi kooku nag tey. moom mën naa gis tamit fi muy profité ah, souvent moom mooy ki nga xam ne dafa feebar wala mu am góom wala yu demee noonu mu profité ci ci feebaram boobu bëtal ko xam nga mm, faagaagal mais kooku ba léegi mbiru jinne la waaw ah, mbiru seytaane la faagaagal mais bu ko faagaagalee da koy xewloo comme comme niñ leen koy jiiñee wala waaw waaye xam nga mm, loolu moom moom la ñuy wax ci parce que boo xoolee sababu nuzul lu waral mhm. wa in yakaadu lazina kafaru li yasiqunaka bi absaarihim lama samiu zikra aaya boobu lu tax mu wàcc mu mën yonent bi sallallahu alayhi dafa am ci ab xeex ñi ñu bon ñoo xam ne dañ xiifaloon ay fan pour bëgg bëtal ko dégg nga gàllankoor ko mhm. waaye si la yàlla wàccee aaya boobu pour ne ko bu ko jàngee rek yàlla dina ko musal ci mhm. kon kon bëtal bu bët bu am na mais dëmm dëmm amul waaw est-ce que am naam amul bëtal daal moo am loolu alxuraan rek ko mais dëmm amul waaw parce que loolu foog mu leer nit ñi mhm. tam réew mi ci dëmm dafa bëri mhm. ñaar ñi ñoo gën a dëgg fit ci plateau bi ñoom laa bëgg bàyyi ñu wax ma fan la maire bi jaar aussi dama koy laaj alxuraan waaw ku gëm alxuraan am na man loolu la parce que mu ngi koy wax. Mhm. ci biir waaye xam wax ne ko amul fenn fu ñu ko bindee dëmm. Mhm. c'est que man fenn rek dama xaw a jaaxale moom mooy fi muy jéem expliquer. Mhm. lan la ñu bëgg a wax mooy dëmm naan bët ak làmmiñ. foofu boo ko moom bu ko waxee ñii di indi thèse yu dëmm am na dañuy dëggal kon loolu. voilà man man man sama problème foofu la nekk yow loolu ngay ah, ah, kii boobu nga euh, génnee. nga ne. Euh, li ñu bëgg a euh, wax ni que li nag euh, moom mooy. kii waaw moom mooy bët bu aay. Mhm. ak làmmiñ bu kii. Mhm. parce que foo kon damay jàpp ne ndax du foofu la gars yi jëlee waxu dëmm. Mhm. parce que dañuy naan ah bul ma xool sa bëtu dëmm yi de. waaw waaw boo waxee rek yow dëmm nga boo waxee rek. waaw xam nga loolu la dafa mel ni kon loolu la. am na ñoo xam te ne luñ tudd luñ tudd ko yàqu. non mais non non il faut mu leer. man foofu laa bëgg mu leer man foofu laa bëgg yow nga leeral. incha allah dinañ ko leeral voilà leeral ko foofu. dinañ ko leeral waaw xam nga foofu ñoo ngi sant yàlla. ndax ba léegi ñun suñu dalil yëpp ci alquran lay doon. alquran la ñuy delluwaat ndax boo xoolee am na ci benn aaya mu ngi ci wax mu ne wa kazalika jaalna li kulli nabiyin dégg nga aduwan shayatinil insiwal wal jinn nga kon maanaam yàlla dafa def ci eh, yenent yi hmm. yenent bu fi mas a jaar nag seytaane yoo xam ne dañ dañ dañ dañ koy topp hmm. ci ci jinne ak nit kon moo tax alxuraan reconnaître na ne seytaane ñaari xaaj la hmm. am na bu jinne mën nañ ko wax rab am na ñuy laajee loolu ndax rab ak jinne benn la benn la rek ndax différence bi bëriwul. Mhm. dégg nga maanaam ci eh, seytaane nit ki nag ni mu doonee. Mhm. moom mooy ne eh, bokk na ci xaaj mooy bët bu aay bi làmmiñ bu aay bi mhm. kooku nga xam ne lu mu tudd mu yàqu kum xool mën na koo gàllankoor. loolu mbiri yàlla la. tuut yàlla. waaw maanaam mbiri seytaane la aussi mbiri seytaane dina dugg nit. yàqal ko. waaw ba nga xam ne day daf koy roo feebar boo xam ne dañ naan kii raba ko jàpp. waaw mais li la Gomis di wax nii xam nga tax mu am solo. Mhm. mais Gomis euh, damay di gis nit koo xamante ne dañ koy mais day taxaw naan maa lekk diw. bañ ma mhm. jàppee maa def nangam. Mhm. maanaam jëfaru boobu nit di def. ñun ñu koy tuddee maanaam diw dafa jëfaru. waaw est-ce que comprendre nga. mais kii jëfaru tey jii maanaam seytaane bala ñu jàpp bi ne ci moom man moom lañ jàpp. moom lañ waxloo. Mhm. mais nit ñi duñu gisee dañ naan moom moo lekk diw. Mhm. gis nga ñaata yoon nañ fi ñaata famille nañ fi tam dëmm. Mhm. waaye nit tam bu toogee rek ne maa lekk diw maa def lii maa def laa. aussi mënoo dul tam tam tam ko. Ah, mais mais Salma dëmm ah, ma man man daal vraiment question dëmm daal man jaaxal na <coughs> mais femme bii euh, Aliou Sow yow mu dëgër fit mi ah. Hmm? bi nag fan nan la fan la jaar parce que Cheikh dafa daw question bi fan la jaar ba taxaw fii. Hmm. ba toog fii. est-ce que c'est man pour man femme bi fi mu fi mu fi mu jaar ba génnaat foofu la jaar ba yegg fi mu jaar ba. fi mu jaar ba génn ah. Ah. waaw foofu la jaar ba yegg si ba ba génnaat fi mu jaar génn nii dem ñu jël si ko foofu la jaar ba dellu soo <laughs> man je partage l'idée de de Mohamed Aliou Sow xooleen fenêtre bi je crois que sapeur bi ubbi fenêtre a fallu ñaari góor yàlla eh, ñaari sapeur ñaari góor yàlla téye ko oui oui mais Aliou Sow yow mën nga yegg fii yow euh, oui lu tax pourquoi mënu fi yëg ça dépend sa xaw ma. j'en sais lu tax ngeen non xam nga lan la. xam nga mais xool fi maire bi taxaw est-ce que man li ma xam man li ma xam mooy nit ki. ndaw si. Mhm. dafa am problème. jaaxle xamul fu mu jëm ma yóbbu ko fii mu ñëw toog jaaxle toog jàpp ñàmbur ba nii jël si ko yóbbuwaat ko. Mhm. problème mu àdduna kese moo ko dal. Mhm. entre jinne nag ak rab. moi je vois pas la différence. xaw ma sax ndax différence am na est-ce am na. est que jinne peut am na. mais rab mooy lan. la mooy différence bi parce que y a une petite différence xam nga ay dëmm yooyu man pour man euh, dëmm ku ku yor ay lekk naa diw lekk naa diw kooku dafa dof yaram boobu baaxul xel bi neexul yaa ngi dégg muy wax waxu dof yaa ngi dégg waaye la mooy lekk nit lekk nit mooy lan kii ko mm-hmm. lekk nit mooy lan jël ko togg ko comme ni ñuy toggee xar wala de wala lekk non la fan ngay jël loolu looy jël si moom non juste pour comme non xam nga xam nga tax may laaj lool mm-hmm. parce que <laughs> nit euh, noo koy mm-hmm. boo ko reyee parce que dafa war a ah. bu ñu ne yaa ko rey reyoo dafa war a dee. nit nit mënul rey nit te te fekk nit ki warul dee. absolument. c'est pas possible donc ay diw moom moo lekk sama mag ak moo lekk suma rak ak yooyu yooyu moo je crois que c'est c'est c'est du n'importe quoi. ça ne tient sur rien du tout. ndaw si nag ci dafa bari ay problème kii ku ko xool xool kanamam xam ne kii ku jaaxle la. dafay dem ba sa bopp mooy tur mais oui mais forcément léegi dafay dafay ñëw langaamu fii am na lu mu langaamoo ba wàcc yàlla suturaal ko yeggul suuf. mënoon mënoon ngeen yeewu suba daal fekk mu yegg. mais lan la la xoolal immeuble mais oui mais kii bi aussi waaw nañ waneel balcon bi waaw mais xoolal fii dafa langaamu wàcc yàlla dimbali ko mu langaamu téye gis nga fi am na trou am na benn trou bu nekk fii ci kii non diggante xool non xool fi rob bi yam trou boobu xaw ma doo xam il faut pas yóbbu affaire bi fu mu nekkul. Mhm. kii dafa am ay xool leen ko kii kii de. dafa am problème yéeg na foofu wàcc na foofu la jaaraatee naawul deful dara. nit du naaw. nit mënul nit dëgg mënul naaw. d'accord mais ñi ñi wax ni ay ay téeri la ah. soppaliku. am waay euh, yéeg waaw ah oustaz <laughs> qu'est-ce loolu. waaw mu jaar ba yéeg fii moom. nga loolu mais fi mu jaar fi mu jaar foofu la génne gisoo fi mu demaat. mais yow sapeur yi foofu gisoo ñaari sapeur yi ko téye. mais mais booy wàcc mooy gën a yomb xam naa ne ah. non. bi mu jàppandoo non mun na jàpp gis nga balcon fi mu toog. waaw déet dafa jàppandu laa yàlla def na fii femme bi jaar ba yéeg. ñu bàyyi oustaz mu mu andi ci xalaatam. waaw alhamdulilah xam nga doomu aadama moom lépp lu ko jaaxal rek. Mhm. jàngat yi dafay wuute. Mhm. Mhm. waaye koñ bi yeewu nañ gis loolu ku ci nekk nag ak na mu ko gisee. ñii ne dafa naaw. ñii ne dëmm la. ñii di taal cuuraay dégg nga di taal cuuraay dëmm parce que dañ ciy profité. yow lu tax naawul wàccaat lu tax naawul yéegaat. <laughs> waaw mu ngoog ki naaw ba ñëw taxaw foofu na naaw yéegaat. looloo tax nag mhm. tey oh. yenn wax yu tamit nañ ci bàyyi xel bu baax a baax. Mhm. parce que ndaw si si biir sama jàngat. Eh, ndaw si maanaam ci. famille bi mu bokk. Mhm. famille bi ñu baax lañ. ndax moo ngi dëkk Njaay Kunda. dégg nga waajuram. bu góor tudd Baye Ousmane. Hmm. waaw dem. yaayam tamit nekk ku baax sonn su baax. Hmm. dégg nga maamam nekkoon boroom xam-xam boo xam ne nit ñi tamit dañ ko daan dikkal. Hmm. ci wàllu ñaan yàlla. ci wàllu faj ay ministre dañ fa daan dem ci Njaay Kunda foofu Saalum. waaw muy maam Thierno dem. maam Thierno Alioune dem kon kooku tey wax dëgg fa yàlla su fekkee ne xëy nañ rek. Euh, teg ci dërëm bi loo xam ne ne tuumaal ko te mu am famille am bokk ci famille bu baax ñoo xam ne famille religieuse mm-hmm. dëgg-dëgg loolu duñ ko rafetlu mm-hmm. waaw waaye ñun liñ ciy jàngat daal moom mooy ne mbir xew na te loolu tawut yàlla mm-hmm. tamit nañ nangu tamit ne physique ni mu amee la métaphysique amee mhm. ça existe bel et bien la métaphysique mhm. parce que la physique c'est ce que tu ce qui est palpable mhm. ce que tu peux mais la physique c'est la métaphysique c'est ce qui est derrière la physique loolu dëgg-dëgg ku nangu loolu xam ne affaire baatin la daal xam ne shayatin am na mbiri baatin tamit am na. li nga wax Aliou Sow du ci d'accord xam naa parce que moom tubaab tubaab la bu wéree. waaw non du question ay tubaab ma ñëw foofu. waaw mu teg. man mm-hmm. que euh, moom xam naa du gëm ne. Mm-hmm. maanaam femme bi jinn mën na ko dugg. ne ko mm-hmm. cas mu nekk teg ko ci balcon bi. mu naaw. waaw non ne ko cas ci bi mu toog nii. kii man xamul problème bi. non mu naaw kon. non dama bëgg sénégalais yëpp ànd ak Aliou ko. ya jox ko jox ko mayo mu takk ay soo yëg fii. mais lii yomb na. loolu li yomb waaw. mais mais nañu seede wóor na yàlla. non li yomb na. mënoo leen yëg fii yéen ñi. ma ne jaar ci pante bi wàcc fii yomb na. yomb na def ko. ah kañ dem boo buggee après ñu dem ko. voilà mais góor ah, leen neex jigéen ñi te non xoolal mais mën ko may si kattan la yomb ci góor. waaw mënul nekk mënul nekk mm-hmm. yow jaaxle bi nga amoon. c'est vrai femme bi fan la jaar ba yëg. inquiétude boobu je pense que sénégalais moom la ñu am fan la jaar mais aussi waruñu woon a. empêché yéen mu leen xam fu mu jaar ndaw waruñu woon a empêché di ko tam di ko tam. parce que loolu moom parce que ah, il ne s'agit pas seulement mais tey jii doomam. ay wam ñi bokk ak moom ñoom ñëpp dégg nga Cheikh bi li ma wax na fi famille am waaye mi ngi noonu ku baax la mhm. mais tam nit Sénégal moom non loolu moo amul tam dëmm amul ah. doo dégg dëmm moo amul koo xam ne mhm. képp koo xam ne gëm nga maanaam Euh, alxuraan. waruloo gëm ne que dëmm am na. am na absolument. dégg nga. waaw ah? euh, am na benn vidéo boo xam ne kii euh, sëñ Cheikh Almakhtoum mu ngi koy wax. Mhm. nee na dëmm amul. Mhm. te am na ay borom xam yu taxaw fii nag dëmm amul. dëmm moo ah, amul amul ça n'existe xam nga nooyu ma xoolal. moo tax seen métier bi am na ay. dëmm amul ça n'existe pas. waaw mais moom aussi ko il vient d'expliquer benn sew sew. boo xam ne am na ñoo xam mën nañ si base. pour l'expliquer aussi merci loolu année boobu mu ngi foofu. Mm-hmm. ah mais jinne aussi. bu ñu bu ñu bàyyi xelay wax ñu bàyyi ko mu expliqué waaw ñun li ñu wax. li ñu wax foofu. Mm-hmm. loolu du suñu wax waxi alxuraan la. Mm-hmm. alxuraan moom moo reconnaître loolu. parce que looloo waral aaya boobu. moo reconnaître lan alxuraan. ne maanaam bëtal am na bët bët bu aay daal. léegi looloo waral saar bi ma aaya bi ma la wa in yakaadu lazina kafaru yonent bi la ko yàlla digal. te yàlla wax ci ne képp koo xam ne. maanaam mbiru seytaanee ko jàpp wala mu mu feebar tawat ci wàllu woowu mbiru seyaatin suñ ko ko eh, bindee jàngalee taflil ko ci ndox mu naan dina dina wër suñ ko ko bindalee dégg nga mu sangoo ko dina wër kon loolu maa farat naa fi kitaab min shay'in yaakaar naa waaw mu ngoog maa farat naa fi kitaab min shay'in alquran bawu dara ndax lépp loo bëgg rek seet ko ci alquran di nga ko fa fekk mhm. waaw parce que boo xoolee man jàpp naa ne aussi hmm? vraiment mhm. war nañu yóbbu Aliou Sow ak Gomis ca kër ga. ñu yéeg man sama ma soog a xam ne. kii la ko fi indi su ma ko defee loo may jox su ma ko defee loo may jox ma ma dem kii. waaye dimbali ma dem def yow foo bëggee bu ma dem def ma dem def ma ma man li ma xalaat. mooy gis nga nit. bu feebaree. yàlla garab la ko garab la ko la ko wutal pour mu naan. waaw. garab garab la quoi. mais hmm. arab la ko yàlla wutal yàlla du moo jël garab bi indi ko. non alxuraan alxuraan garab la la joxe. waaw tey tey alxuraan joxewul ay ay ndox bu naan ay ndox bu naan yi yëpp. alxuraan joxewu ko alxuraan garab la joxe. sa sëriñ bi nu mu tudd. Euh, amul importance suñu tool voilà xam nga tax dama doon hmm. wax ne. tey nga dem ci nitu yàlla léegi nga gis ko mbirum jàpp. mu taxaw léegi ñaan ta nangam tuf ci bopp bi mu nangam. gis nañ ko mhm. ci sëñ Fallou gis nañ ko ci Baye Niass gis nañ ko ci keneen. Mhm. ça veut dire tey jii ñoom hmm. am na alxuraan aussi dafa am day faj. day faj ni ni ngeen ñi ñu gëmee ne tubaab bi day faj ak i comprimé am mhm. na nañu nangul ne comprimé comprimé yàlla yàlla moo ko am nu mu ko jaar alxuraan alxuraan yàlla la ah, opération nangu na sax xam nga boo xoolee mais nangul alxuraan parce que yàlla moo ci alxuraan maa faram naa fi kitaab mi shay'in comprimé mooy alxuraan comprimé mooy comprimé mooy alxuraan waaw xam nga siro siro bi ñu naan euh, di faj contre siburu bi siro yooyu ñooy alxuraan mm-hmm. oustaz daaneel rapidement xam nga foofu boo xoolee alxuraan yàlla ñëw na ci ne wa unzila min alquraan dégg nga mu ne maa huwa shifaawun wa rahmatun mhm. dégg nga minal muminina mu ne alquran yàlla dégg nga wàccee na ko mu nekk dégg nga saafara mhm. ak euh, yërmande ñeel ñi nga xam ne ñoo ñi gëm yàlla mhm. kon loolu nga déggee ci ne li sëñ Massa wax la rek moom moo ne alquran bawul dara lépp lu la réer rek seet ko ci alquran gis nga gàncax yi ngay wax noonu garab yi alquran ba moo maanaam moo jiitu na fi alquran mais alquran boobu ñëwee daf ko dëggal. Mm-hmm. ok parce que alquran bawu dara lépp lu la réer rek xool ko ci alquran. d'accord léegi nag ki bëgg solution ci feebar faju mm-hmm. moo xam mbiru shayatin la moo xam mbiru feebaru ragg yaram la. Mm-hmm. dégg nga demal al alquran. yonent bi sallallahu wax na ne te loolu yàllaa ko wax ci boo seetee ci suratu Fatiha ne yonent bi wax na ne dina faj mboolem jàngoro. bu du dee. macha allah am na solo am na solo waxtu bi xoj nañu ma rapidement yéen ñi am xam-xamu di mhm. xool nit di gis ay yeneen ak yeneen ak yeneen Aliou Sow mi am lu ko jàpp <laughs> waaw amul lu mu àndal moom yàlla dina koy may xam nga xam nga. d'accord yàlla am na ñoo xam lan lan lan lan la ko vocal nga ma ko dégg gëm naa ne am na ay daal. après nga vocal ko ma euh, amoon na solo bu baax a baax. mais Mass il faut préciser que ñiy wax ni que euh, ndaw si dafa summeeku yëre bi mhm. yëre bi kese la bàyyi foofu ci hôpital bi après waa hôpital bi démentir nañ information boobu noonu et c'est bien à préciser donc euh, mu nekk loolu euh, aussi site internet yi bëgg ay wax xoolal site internet yi bëgg bës gis nga gis nga réew yi taxaw yore micro di wax dañu war a bàyyi gis nga xool tax ma indi ko foofu xam nga tax dañu war a bàyyi mhm. ñenn ñi aussi di di mais gis nga yaayu jàmbur bàyyi jàmbur rakki jàmbur toute une famille nga taxaw wax lu mel nii dañ la war a topp bëgg bës bëgg ay vues tax na nga mhm. tam nit dëmm dañ bàyyi tamante dëmm a metti mhm. ku ñàkk ku ndóol mhm. ku ñaaw la ñuy tam dëmm de kenn du leen tam alors euh, oustaz di bu baax a baax sa sa teewaay ci plateau bi macha allah jërëjëf ok jërëjëf Mass yow aussi di la jox rendez-vous semaine prochaine waaw di gërëm di gërëm bu baax a baax cheikh bi rek ah euh, di wax ne moom aussi ku ku màgg la parce que waaw waaw naw waxtaan des na parce salma moom lay def ay mbir mais mais mais kii buñ ne Babacar Thiam mhm. mi mi mi mi ñëpp xam nañ ko sikar ci kii moom fi dalal mu ngoog eh, oustaz Mohamed Ndiaye ñoo ngi koy nuyu voilà kon kooku moom mhm. xam nga te mm, euh, yee naa ko ci mhm. fajar gi mu ñëw euh, pour pour leeral loolu dafa am solo ñi ñi xam ko ne bu ñu leen di ci plateau bi aussi pour xam-xam la pour yee sénégalais yi ci ci lu bëri aussi quoi jàngat nañ bu baax a baax ci a mu nekkoon lu am solo di ko ñaanal rek borom bi kàttanal a xamante ni moo di liggéey bi donc bu ko defee ñu jëli tout de suite euh, actualité